man démb damaa toog. waaw oh. Pape Diouf def benn seede ci yow c'est-à-dire loolu point la rek vite fait. waaw mu ni ñuy wax téléphone ak keneen benn kilifa bu ñu taxaw waaw mu ni Boucher dama koy jox xaalis mais day bañ. du jël sama xaalis fekk da ko doon seede keneen. Mm-hmm. man maa ko dégg Pape Diouf di ko wax ci làmminam. Mm-hmm. di ko Boucher day ñëw fekk ma seen di ma teral ma jëkkatiwaat xaalis di ko jox. Mm-hmm. mu ni déedéet du ko jël. donc loolu seede la rek boo xamante ne dama koy dama koy def euh, après combat Balla Gaye bi. waaw gisatuñu de ci benn. plateforme média waaw waaw. pourquoi nga jékki-jékki nga baa ma metti triché wu ma. Mhm. man mënuma ànd ak Balla Gaye mu daanu ma nekkaat ci dëkk bi di def ay rëbët rëbët toog naa deux deux semaines xaw ma trois semaines génnuma fenn sama snap bi taaluma ko ay alhamdulilah ak laa ilaha illallah midaadi wa axlaamin rabbi bi ma yooyu laay dugal. parce que metti na ma te metti na ma ndax Balla Gaye dama ko bëgg ma xam fi bàyyi ñëpp jàpp ma. mais tu as perdu beaucoup d'argent. ci j'ai perdu beaucoup d'argent. parce que Balla Gaye laa la wax. mi ngi nii maa ngi jàkkaarloo moom. Balla Gaye xaw ma fu xaalisam di dugg. barke sëñ Saaliw Mbàkke xaadimu rasul billaahi wallaahi tallaahi Balla ngay bu dee mës naa koo laaj dërëm yàlla bu ma gisanteeg Serigne Touba xaadimu rasul maay génnee sara maay fay Serigne te laa ko waxee. foofu tamit ay point la. wax nga wax nga ci sa sa snap ngay liggéeyee. waaw après combat bi man damay suivre. sa après combat bi nit daf ma woo di ma jox ay publicité. waaw ma ko jëluma mënuma koo jël ndax damaa nekk ci defet. daf la jaraloon nga perte loolu yëpp. barke Serigne Saliou Mbacke. noonu laay ànd ak nit. te man li may sonn ci nit la ma tubaa Touba Xaadimu Rasul di fay mu ngi di sonn ci nit ba pare doo am dara loolu mënul nekk. ok. j'ai du ma nopp. <laughs> damay wax publicité fay na ma 30 millions démb. wuy ma publicité fay na ma 30 millions démb. Mhm. à cause de qui Birane Ndour Doura Balde ñooñu dañ lay war ni ñuy nappee. nga liggéey fas jom. Mhm. ndax seeni baay ak seeni nijaay noonu lañ leen def. li yëpp mënoon naa ko bañ a leeral. Mhm. mais pour ñuy bàkkaaru rek. 30 millions la ma fay jox ma 20 millions mu des 10 million dafa ma koy fay dans cinq mois publicité te ñi ma xam di ma suivre sama plateforme ñu ngi gis maa ngi dugal publicité bu bees. yaa ngi dégg euh, Matar Spot moo ma lijjantil CO ak Black Eagle ñu fay ma 7 millions. moo la lijjal ay publicité rek bul bul jàllale. waaw moo tax bëgguma ko fi sax benn suñu benn la mënuma ko woon tudd affaire bi ba euh, Pape Diouf li may lijjantil ci ay pub mënuma la wax nu mu toll ñooñu. loolu lañ sekk ak man Ismaïla Bass maas may jox mënuma toog fii di ko fi wax ba Badara Gadiaga même chose ñooñu loolu lañ bëgg may def looloo naw ma kilifa boo fi woo téléphone xam li may wax baax fi woo téléphone allo may ma cinq cent mille kar coupé mu may la ko bu subaa boo ko woowee doo ko jot parce que bugguñu loolu ñu te man boobu ba tey ma ngi ànd ak samay nit boobu ba tey san fu ma leen woon jël ma dañu waxante dëgg ci boobu laa ba ñëw boobu ba tey yaa ngi ànd seen constance boobu euh, coloré mhm. pour yow lan mooy coloré parce que dañu gis Boucher ay nit ku démbam ba tey mu ngi ak ñoom mhm. coloré mooy nit ki ngay ànd doo xool lu mu am doo xool lu ko yàlla may doo xool dara da koy bëgg te yàlla tax fu ñu koy wax ñaaw nga taxaw défendre deefa fu ñu ku muy concurrencal nga jël defaasal ku ko respecté nga respecté ko ku ko respecté wul bul ko respecté man personnel man Ketchup personnel aw ma noonu waaye lu tax may am noonu parce que dañoo bëgg ma bàyyi sama nit muy descendre te du ma ko def mukk ci àdduna sama nit ca kaw ñu ci des ca suuf. d'accord balaa ñu ñëw ci Balla gi encore fàcc <clears throat> ci point boobu lañ ne kon te am na solo. Euh, ñaata la la Viviane Faye ci tournée bi. bari na macha allah Viviane moom sant yàlla. ndaa naan la maa ngi soog a liggéey moom kontaan na ba ci kanam yàlla ma ci nekk woo ma ci ruq wax bay jooy fay ma ne ko lii taxul ma ñëw ci yow ndax man Viviane woo nga ma tamit Viviane moo ma woo ne ma dama bëgg nga jàpp ci liggéey bi mm-hmm. Birane ne ma bëgg nga jàppale Viviane sama yaay la mm-hmm. Pape Cheikh ma mm-hmm. jàppale Viviane yaa ngi dégg mais réccuwuma loolu yépp ndax jox na ma sama gëdd dalal na ma hôtelu cinq étoiles bu cher ma ñëw mu jox ma argent de poche pour ma dund ci bëri li ma fay toog yëpp abaak may dégg yàllaa ñuy tiim aw ma sax du leeral kenn mu jox ma xaalis bu bari ma téye may ñibbi bi ne suba laa ñibbi mu woolu ma ci hôtelam dugal ma fi mu ma war a dugal sàmbaram ñu toog mu ne ma am lii maa la ko jox boole kook jooy ak kontaan ndax nit ki dina la jox ba pare jéppi la mm-hmm. waaye jox ma kontaan akolaat ma parfum bu neex di ma xeeñ ma kontaan sama xol sedd ma xam ne Viviane mii c'est un rêve. ci borom ci ma parfum. laay laay la la moo neex parfum bu nu ma accord ji xaw ma. Eh. parfum bi xaw ma accord jaage xaw ma. Hmm. sama accord laa tey waatee ne encore. <laughs> ñëwagul bu ñëwee man Viviane. di ko akolaat rek neex na ma. waaw nii fii. dama koy maa ngi koy akolaat waaye maa nga caa aljanna fi daw. Viviane moo oo Viviane oo Viviane moo set. rafet. élégant lu neex égal élégant. dëgg la ba pare doom yi yaru xam nga nga am sa yaay. surtout Philippe Ndour. non Philippe waxuma la mais. Zena aussi booy yooyu ñooñu dañ leen war di. non man Philippe li tax ma wax. xoolal wuy ma dama yooyu manqué wuñ dara. ay Philippe Ndour Zeyna manqué wuñ dara mais dañoo yaru. booy tonton Boucher tonton. tonton Boucher merci beaucoup tonton Boucher wala Philippe ñëw yow what's up my brother I really like you I really love you man you the best man you make my mom happy ma ne ko yeah I make your mom happy because your mom make me happy yeah mu ne ma yeah I see that and I tell him like if every everybody like touch you I'm gonna touch him never touch my boy Philippe ma ne ko ma ne ko bu la kenn laal ku la laalati man lay laal man noonu laay doxee ku ma ji ma mhm. nag koy fësal ñi dafa am ñoo xam dañuy tiise duñu xamalu leen dara dañuy naan bëgg diw di jaar ci suuf man nag samay mbir soo gisee mu fës ba coow yëpp di topp damay fësal loolu parce que su ma la bëggee dama koy fësal far force ba ku lay laal daf ma ciy xool man nu laa mel dañ ma bàyyi ci si ma mel man bambara la je suis bambara la patron bu ma rey dëkk bi man na fi ne ginnaaw yàlla ak yonent bi man lañ fi teg ci influenceur boo xam ne lu mu laal mu ne parce que sëñ Tuubaa moo bëggal boppam jàpp ma nawloo ma fonk ma doo bàyyi ma ko mënoon a lekk sax lekk waaw léegi Bousse euh, dafa mel ni défaite bi ngeen am ci Balla Gaye bokk na ci défaite yi leen gën a métti looloo ma gën a métti ci àdduna pour dire vrai Balla Gaye li ko Boy Niang daan moom ma gën a metti sama àdduna ak alaxira gëw ma ne dinaa amati lu ma metti noonu. ah bon waaw parce que Balla dama ko bëgg. Balla Gaye gëmiwuma ko zël. Balla Gaye dama ko bëgg dama ko attanul. mais pourquoi loolu wër leen a bett te nga warul xam ni que Boy Niang mii amoon na sañ-sañu daan Balla mais Boy Niang mën na daan Balla Gaye champion la Boy Niang ndaanaan la maa ngi koy félicité. Mm-hmm. yàlla na ko jig ci barke Cheikhul Khadim mais dafa daan koo xam ne àddunaa ko bëgg ñëpp nawloo ko mu def lu ne ci làmb ba pare man sama mbëggeel ci Balla Gaye man booy Niang man wax naa ko ko fépp ci télé yëpp booy Niang boo ko gisoon léegi du ma ko nuyu ah bon parce que ki mu daan moo fees sama xol te lim ma def noonu du ma ko baal Boy Niang daan bi mu daan Balla Gaye du ma ko baal man Ketchup du ma ko baal. mais comme baal la. non mais sama yoon ñëw ci loolu je l'aime Balla Gaye j'aime ba génn waxu Balla Gaye. non non mënatuñ faa génn euh, booy ñëw daan na Balla Gaye. am nga euh, taa bi taa bi am nga ko. waaw ah. taa bi taa émission am nga am naa ko. waaye nañ yaa ma doon wax une heure de retard a fi wax sa wax de. mayaat nañ la 30 minutes. ah kon baax na xam nga 18 18 heures war a jeex. waaw mayaat nañ baax na d' accord euh, parce que yow yaa mais bon dinañ ko kii quoi. waaw parce que euh, euh, Aïda Samb. Mhm. damay dem ni loolu il faut ñu wax ci. Aïda Samb gis nga dama ñëw kar jëkkëram woo ma Abbas Diadio. Abbas Diadio liggéey rek liggéey. baax mais man woo man man damay liggéey rek ñu may woo. Mhm. Aïda Samb moo ne ma kaay. Mhm. te Aïda Samb ku ne xam na ni mu mel ci Pape Diouf. dëgg la ku ne xam na ni mu mel ci bébé Baas. Mhm. man moom Pape Diouf boo ko respecté ma liggéey ak yow boo ko respecté wul du ma liggéey ak yow. loolu si loolu jax na Aïda sam daa bëgg Pape Diouf nawloo ko Pape Diouf Viviane bëgg ko ñu bëggante nekk ñoom ñëpp def ko frère. bëgg ko day reyante pour ñoom ñu réussir Aïda Samb albumam bi boo ko déggee. Mhm. album bi mu war a génne. maa ko dégg le 14 la war a génne n'est-ce pas. <laughs> bul jooy. li nga dégg dégg Aïda Samb way na mbëggeel mbëggeel way Aïda na mbëggeel loo xam ne waaw musuma gis lu mel noonu ci àdduna d'accord Aïda Samb way na Sénégal laa ilaha illa Abbas Diadio jëkkër ji nag ba ñeme koo def ci moom fonk ko fonk ko trop sax xamante nga moom bu ba ah sama frère la ci moom frère moo ne ma ñibbisil mhm. France ma ñib man dama bëgg yokk mhm. di ma jox moo bari bëgg yokk fii bi pour noobale Abbas boobu ma bu la wooyee ma ne bëreet gisoo vidéo yi. da ngay ñëw ma ne bëreet ñibbisi mu ne ma ñëwal boo paree dinaa la daggalaat bee nga dem Amérique fu la neex nga dem. ndeysaan te bu ma bëgg ma paree Dubaay la may daggal bee ma dem noppalu ji parce que dama sonn <laughs> at bi yëpp dama ko wax. yaa ngi dégg Abbas Diadio le 14 sa album bi bu génnee album Aïda Samb bi bu génnee mhm. waxoon naa leen ko ci Pape Diouf ngeen di leem-leemal ba ngeen ko gisee yéen ñëpp dar ngeen seen génne mhm. maa leen ko a tey Aïda Samb albumam bi mhm. musuma gis lu mel nii li mu way ambiance na neex na ba pare am na. mais Aïda ba pare le 4 mars dîner de gala yow man maa la invité sama bopp yow invitation dîner de gala le 4 mars King Fahd Palace ci moom laa jëm nii pour ñu def ay spot ak yooyu. très bien ay da rek.